ok incha allah ñu ngi war a jël tey ay cent cinquante ci suuratul aaraaf fi suñu borom di waxee walamma rajaa muusa ila qawmihi غضبان أصفا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewal gim ñu dëppaleeg ñu mën a bàyyi suñuy ite ñëw daje ci ab néegam di jàng ab téeréem suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bégale na ci bégale yu bari mas naa toog ak saxaaba yi ba mujj mu ne waaw ana koy dem fii ci butxaan masalan ana kan ci yéen mooy ñëw dem fii rek Padoa ñu daal di ko fay may benn gileemu tukkal gileem bu mat sëkk wala ñu may ko ñaari gileem yonent bi alayhi salaam bi mu waxee loolu saxaaba yi na ko ah loolu kay képp kenn ci ñun bëgg na ko ay képp kenn ci ñun su ko wóoroon ni su doxoon dem Padoa di may ko fa gilee mu tukkal te bu doon suñ jamonoy tey jii mooy ñu may ko fa ab kat-kat kon ñun ñëpp dañ fa dem mu ne moo ne day kenn ci yéen demoon ca jàkka ja jàng fa benn aaya moo gënoon mu demoon Padoa ñu may ko fa kat-kat mu demoon ca jàkka ja jàng ñaari aaya moo gënoon ñu may ko ñaari kat-kat nu aaya ya toll noonu li xéewal yi di toll loolu kon mbokk ay ngëneel la yoo xam ne li ñuy wax rek mooy yal nañu yàlla nangul donte ne ni tamit am nañu bari ñoo xam ni xëy na ñu ngi tasaaroo ci àdduna bi di ko déglu comme ñun niñ koy dégloo ñoom it ñu ngi leen di ñaanal ak ña nga xam ne ñoo dox suñu digganteeg ñoom di leen ko jottali yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu nangul te ëllëg mu boole ñu ci mboole mi nga xam ne seeni xol day aju ci néegu bi yàlla ba mi ngi noonu bu Cheikh Ousmane pare incha allah ñu jël suñu aaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى ربنا أسفا قال بئس ما خلفتموني قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وذلة ربها إن ربك من بعدها لغفور رحيم بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ba Muusa delloo ca xeetam doon aji mer doon aji kuy tiisu qaala bi'sa ma xalaftumuuni min baadi mu ne aka bon li ngeen ma wuutoo sama gannaaw aajiltum amra rabbikum ama ndax da ngeen a yàkkamti seen mbiru boroom wa alqa al alwaaxa wa axada bi ra'si axiihi yajurruhu ilayhi mu daal di sànni alluwa ya tablet yam yoroon daal di jàpp ca bopp doomu ndeyam ja diri ko jëme ko ci moom qaalat na umma inna alqawma stadafuuni mu ne ko ay sama doomu ndey xeet bi day dañ maa néewal doole wa kaadu yaqtuluuna ni xaw nañ maa saxaray fala tushmit bi al aadaa ewaay bul kontaanloo ci man noon yi wala tajal nii ma alqawmi zalimin ca bul ma def may ànd ak xeetu toñkat yi qaala rabbi ixfir lii wa li axi muusa daa dina ay yàlla jéggal ma mag sama doomu ndey jii di haarun wa adxilnaa fi rahmatik ca nga tàbbal ñu ci sa yërmaande wa anta arhamu rahimin yaa ëpp yaa ëpp yërmaande ci képp kuy yërmaate inna lazina taxasu al-ijal ña nga xam ne dañoo jëloon sëll wa muy nag wa di ko jaamu sa yanaaluhum ghadabun min rabbihim dana leen dana yegg ca ñoom dal ca ñoom la nga xam ne mooy mer muy bawoo ci seen boroom wa zillatun fi lxayaati dunya ak toroxtaange ci dundug àdduna gi wa kazalika najzi almuftarin naka noonu la ñuy fay ñépp ñuy duural walazina amilu sayiaati suma taabu min baadiha ña nga xam ne nag dañoo jëf ay ñaawteef gannaaw bu ñu tuub gannaaw loolu wa amanu walbati ko daal di gëm inna rabbaka min baadiha la gafuru rahim sa borom yàlla gannaaw loolu mooy aji koy jéggalaate aji koy yërëmaate mi ngi noonu mbokk bi ñu fi mujjee àllarba ji passé waa bani israil ñi ngi ci désertu Sina suñu boroom jox rendez-vous Muusa war a dajeeg moom gannaaw fanweeri fan borom bi yokk ko ba def ko ñiin fukki fan bi Muusa demee say say bu bon ba di samiri utal leen benn xërëm ñu jël xërëm bi di ko jaamu bi ñëwee di jaamu xërëm bi suñu borom yàlla nettali woon nañu mbir mi ci dars bi passé léegi nag Muusa ñëw na jóge ca borom ba avant muy ñëw borom bi nee na ko inna fatanna qawmaka min baadika wa adallahum samiri Muusa day xeet ba nga bàyyi gannaaw fitnaal nañ leen samiri sànk na leen Muusa ñëw bim ñëwee mi ngi ñëw ànd ak mer mu tar ànd ak tiis mu tar waaye bim ñëwee lan la gis mooy xeet baa ngi wër nag bi di tëgg ak a fecc di jaamu nag bi mu ne aka bon li ngeen ma wóotoo sama gannaaw ca mbokk niñ ko waxe woon ca àllarba ji wees tey jii aka bari kër sëriñ soo xam ne aka bon la leen seen doom ak i sët wóotoo seen gannaaw aka fi bari ay sëriñ soo xam ne ñu ngi dëdd woon àdduna samp seeni daara woote ngir génn nit ñi ci ceddo delloo leen ci seen boroom bañ fa jógee seen doom def la contraire génn nit ñi ci yàlla delloo leen ci seen bàyyi ñu ngi noonu loolee mbokk da ngay gis moo natt ba yàlla daloon yonent yàlla Muusa aka bon li ngeen ma wóote sama gannaaw yéen da ngeen a yàkkamti seen mbiri boroom seen boroom sama boroom moo ma woo di diisoog man lu mu mën a doon bala ngeen a jël dara du ngeen xaar ba ma ñëw mer bi yegg na ci mu sànni alluwa yi mu yoroon alluwa yooyu nga xam ne boo demee ci mu fassiruuna yi am nañ ci wuute ñii ne ñaar la ñii ne ñett la am na ñu dem ba ne juróom ñeenti alluwa la ala kulli xaal ay alluwa la yoo xam ne borom xam-xam yi am nañu wuute ci ban matière la woon la ëpp ci ñoom ñu ne ci ay plagu xeer la ko suñu borom bindaloon loolu am nañu it wuute ci ndax alwaax yi mooy tawraat wala alwaax yi bokk la téere tawraat bokk na la gën a not la ibnu kasir di gën a ci tafsiram mooy alwaax yooyu ci la tawraat nekkoon moo tax suñu borom ne katab naa lahu fi l alwaax min kulli cheyin mawisa wa tafsiran li kulli chey kon ñu ne loolu moo nekkoon tawraat suñu borom bind ko ci loxoom jox ko Moussa loolu bi nga xamee ni nii am na borom bi subhanahu wa taala dogal Moussa mer ba mer bi yóbbu ko mu sànni alluwa yi mu yoroon ca mbokk xam ngeen ne mer dana yegg ci doomu aadama ba dootul xoolati sax li muy def soo demoon ci ñiy jàngale fiq dañuy wax doomu aadama bi dana yegg ci mer ba kenn du ko toppay waxam boobu fase woon soxnaam sax fase boobu mën nes na koo toléré delloo ko waat bu mer mi giifee ñu ne ko ndax xam nga li nga doon wax su dee ne mbir la moo xam ne nii teqali woon na ak sagom dañ naan fase bi dogul donte nag firiwul ni xale yi tey defee ku xëy fasa sa jabar une deux trois quatre boo xëy naa dama dama meroon amul kuy fasa sa soxna fekk meroo mer bi ñuy wax fii mooy mer bi yegg ba yóbbu sa xel complètement Moussa alayhi salaam gis nañu ne bi mu meree dafa jóg dal ci Haaruna ndax Haaruna la waxoon contrôler ma xeet bi na nga yéwénal léegi nag gis na gaa yaa ngi jàmm nag bi gis na Haaruna ngi taxaw mu ñëw rek dal ci kawam fii borom bi dana dafa jàpp ci bopp bi waaye boo demoon ca taaha borom bi nee na dafa ne nikk ci karaw bopp bi ne nikk ci sikkim bi téye te muy wane na mbokk yonent yi dañoo amoon ay sikkim moo tax foofu Haarun daf na ko yab na umma la taaxus bi lixiyati wala bi rasi Muusa ne nikk ci sikkim bi ak bopp bi xëcc ci Haaruna ci Haaruna ko mag waaye booba mer na mer boo xam ne jiggi na dayo Haaruna nan nga mën a seetaane lii mu ne ko ay sama doomi ndey donte na ñoo bokk ndey ak baay waaye ngir yërmande ci moom ay sama doomu ndey xeet bi dañoo gis na man ko lompañ la istadafu ni aw ma kenn ko ma dimbali ñoom ñépp ñu taxaw contre man tere naa leen dox seen digganteeg jaamu ko ba sax dañoo décidé woon pour rey ma tuutee tee rek ñu rey ma da nga doon ñëw rek fekk ñu rey ma waaye lu ma mën a def def naa ko te it mbokk lu bon doomu aadama bi mi ngi noonu rasul sallallahu alayhi wasallam dane boo ko gisee jéem koo dindi ak sa loxo su dee mënoo ko jéem caa wax sa kemtalal kàttan su dee ne mënoo ko ca mooy ragal ne wax ji day gën a taral fitna bi mu naqari la sa xol ay Moussa li ma mënoon yépp def naa ko bi loolu amee Moussa dog ko bàyyi daal di dellu ca boroomam subhanahu wa taala daal di ne yàlla baal ma maag sama frère bi di Haroun te nga dugal ñu ci sa yërmande yow yaa ëpp yërmande képp ku yërëmaate mbokk nga la waay jullit ñi gëm leen loolu kuy yërëmaate yàlla la ëpp yërmande gëmal ne sa bakkan bi li muy yërëm yërëm yërëm sa bopp yërmande yàlla gën a raw yërmande bi nga yërëm sa bopp sa ndey ji la jur yërmande bu mu am ci yow yërmande yàlla moo ëpp loolu waaye malheureusement tey jii nit ñi am nañ ñu ëpp yërmande yàlla subhanahu wa taala tey jii nit ñi créé nañ ñoo xam ne ñoo ëpp yërmande yàlla subhanahu wa taala ndax bu dee su ma demee balay ñaanal dama naan la yàlla na la diw sàmm bàyyi naa la diw diw dana la fay diw dana la yokk kon dañ jàpp ne diw moomu moo ëpp yërmande yàlla te it moo ëpp kattan yàlla waaye mbokk déedéet allah subhanahu wa taala huwa arhamur rahimin mu ëpp yërmaande képp ko yërmaande ñu ngi noonu jàll jàll jàll waala bi loolu amee borom bi ne ko ah d'accord yow moom danaa la jéggal yaag sa frère waaye ah ñi nga xam ne dañoo jëloon nag bi di ko jaamu day mer dana wàcc ci ñoom te it ak toroxtaange dana wàcc ci ñoom te ñooy almaghdubi alayhim léegi lañ jàng bi ñuy julli timis léegi ñu jàngaat ko gannaaw gee ay yàlla yàlla boo ñu boole min almaghdubi alayhim yonente bi alayhi salaam mu ne mooy al yahud yahud mooy ñi xam dëggug yàlla ba pare topp seeni bànneex ñooy almaghdubi alayhim azilla borom bi mu ne dana leen toroxal lu dul ña ca wëlbatiku gëm sellal seen ngëm toroxtaanga di ànd ak ñoom semaine bii passé rek la benn waaye dem fekk fa ñuy jaamoo yàlla ca États-Unis mu rey fa fukk yahut ak benn lii ñëpp yéen a ngi ko dégg ci média yi naam wax nañ ci quelque temps nëpp nëppal ko waaye tey bu ko ab jullit defoon yaa ngi dégg ah kon mi ngi noonu toroxtaange gu nekk ci ñoom bu leen yàlla suufeel borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne nii la ñuy faye it képp koo xam ne da ngay dóoral sa boroom mbokk muftarin ñi gën a bon ak dóoral ci kaw suuf mooy ñi dóoral ci diine yàlla ji yokk ci loo xamee ni nii bokku ca ca loolu képp ku ko def tuumaal nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaamu Maalik da doon wax naan képp ku indi bidaa ci lislaam ba pare yaraaha xasana mu jàpp ne lii dee bidaa ba rafet la ku mel noonu day faqad zaama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaana risaala ku mel noonu dafa jàpp ne yonent bi dafa trahir xeet bi parce que pourquoi lii di jaamu yàlla gu baax buy jegeel yàlla yàlla yónni ko pour mu jàngal ñu lañ koy jegeel moom jàngaliwu ko jàngalu ko ay saxaabaam ba mille ans après monsieur Ndiaye jóge fële daal dañuy jàngal loo xam ne nii dañuy jegeel suñu borom kon yonent bi trahir na peuple bi loolu la ko imaamu Malik waxee. mi nga noonu ku mel noonu day jàpp ne la yonent bi alayhi salaam xaana risaala dafa dafa wor risaala bi ko yàlla yónni woon borom boobu nag ne loolu la ñuy fay ñiy dóoral te boo demee ci yeneen aay demal suratul baqara suñu borom lu mu mujj wax Moussa Moussa waxal xeet bi yaa qawm innakum zalamtum anfusakum bi ittixaasikum al ijl fa tuubu ila baariyakum faqtulu anfusakum rey leen seen bopp loolu la leen borom bi fayee rey leen seen bopp yàlla def ci seen biir ngëm ñu tuub dellu gannaaw nangu dogalu yàlla yàlla wàcc ci ñoom benn lëndëm lëndëm googee borom bi nag nga leen ay ca ñuy nekk di cor kenn xamul koy rey di cor di cor di cor Muusa di ñaan ak Haaruun ba yàlla na doy na teggi lëndëm gi ña dee dee loolu it mu lay won ne mbokk ngëm yàlla bu ko yàlla defee ci xol dee dee woyof ci moom ana ñaata ci ay sahaaba am na ci koo xam ne nii mi ngi tuddoon Maïs ibnu Malik am na ci koo xam ne jigéen la alxamidiya ñoom ñaar ñëpp ku nekk yaa ñëw volontairement ci yeneen ci bi alayhi salaam ayu mi yàlla yónni yàlla nattoo na ma dama njaaloo nañ ma rey ñu ngi noonu yonent bi du mooy ñu insister bañ rey leen loolu it la yàlla defaloon bani israil li ñuy bon bon bon yàlla dugal seen xol ngëm borom bi ne reyante leen ñu reyante bala sob yàlla borom bi nag ne ci loolu laa leen di baale moo tax borom bi ne ñi nga xam ne dañoo jëf lu bon waaye ñu tuub gannaaw loolu gëm suñu borom yàlla koy jéggalaate yërëmaate la ca loolu it mbokk xamal ne lépp loo dégg ñu ne ku ko def safara la jëm charte ba mooy waa ji tuubul avant muy dee lépp loo dégg ñu ne ku ko def ma ngay dee dem sawar charte ba mooy waa ji tuubul avant muy dee waaye amul benn bakkaar booy def shirk rey nit riba lu mu mën a doon yàlla wërsëgal la avant ngay dee nga tuub ko tuub bu sell lu dul yàlla dana la baal ci yàlla dana la yërëm ni nga noonu dana la baal wëlbite ko def ko ay tiyaaba yërëm la tabbal la aljanna yal na yàlla wërsëgal ñu tuub yu sell ci lépp lu ñu nattoo ci bakkaar
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون سار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين بارك الله فيكم ولما سكت عن موسى الغضب bam demee ba dal ci muusa mer ma nekkoon ci moom axasal alwaax noonu la wëlbatikoo jël àlluwoo ya wa fi nusxatiha bokk na ca lañ ci bindoon nusxa mooy lañ bind muy exemplaire ndax àlluwa ji ma nga jóge ci laxwul mahfuus dañ ko recopier ci àlluwa yi muusa yi nekkoon na ca lañ ca bindoon hudan wa rahma lii di njub ak yërmaande lilladina hum li rabbihim yarhabuun ñeel ñi nga xam ne seen boroom dañoo tiit ci mbugalam mën na leen a dal fuñ mën a toll waxtaara muusa qawma nii la muusa tànne xeetam wa sabiina rajulan li miqaatina juróom ñaar fukki góor ci rendez-vous mooy daje bañ waroon a daje ak moom falamma axazathum rajfa bam leen jàppee yëngu ba qaala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaay ay yàlla bu la dee xoon nga alagoo leen lu jiitu maag ñoom ñépp mi ngi noonu atuhlikuna bima faala sufahaau minna ama ndax yàlla dag ñuy alag ca la nga xam ne ay dof ya ca ñun mooy ña doye di ca ñun ñoo koy def in hiya illa fitnatuk yàlla lii du dara lu dul say fitna tudillu biha man tasha yaa ciy sànke ku la neex wa tahdi man tasha yaa ciy jëbale ku la neex anta waliyuna yàlla yow dong yaay suñu féete faxfir lana warhamna yàlla jéggal ñu ca yërëm ñu wa anta xayrul ghafirin yaa gën ci ñiy jéggalaate ñu ngi noonu bokk Moussa alayhi salaam yàlla dogaloon na mu nekkoon ko tàng lool sunu maam yi koo dégg ñu tudde ko njàmbe ñu ngi noonu mbokk bi inspecteur sàmm yal na yàlla sàmm ko njàmbe la tudd soo déggee njàmbe rek xamal ne Moussa mooy cosaan ba ndax dañuy tudde seen doom yonent yàlla Moussa ba pare ñu ne bu ñu ko woowee Moussa day tàng moo tax ñu ko def Moussa njàmbe yaa ngi dégg Moussa noonu la tàngee woon doonte ne tàngaay ba yépp mi ngi aju woon ci tar ci taxawal dëgg looloo tax gis ngeen la ko jële woon Égypte mooy fekk na kenn ci mbokki firawna yi di xibti yi jàpp benn bani Israil di ko nogguti di ko dóor dóor yi metti bi bani Israil bi woo Moussa pour mu xeccili ko Moussa bi mu ñëwee benn korpañ lu dóor waa ji rek waa ji dee ñu ngi noonu Moussa dafa boole woon kattan ba pare tàng lool léegi nag tàngoor boobu kon moo tax mu ànd ak mer suñu borom mu ne ba mu demee ba mer ma giif te mbokk jullit doomu aadama day mer nit ku dul mer baaxul imam Shafi da daan wax man lam yaxdab fa huwa ximaar ku dul mer yaag mbaama yem problème bi kay mooy da ngay xam fooy mere ak it booy mere nooy contrôler sa bopp rasul sallallahu alayhi wasallam dafa doon ñaan yàlla inni as'aluka kalimata alxaq wal adl fi lgadabi wa rida yàlla yàlla nag ma wërsëgal may wax waxu dëgg waxu maandu te heure bu ma meree ak heure bu ma kontaanee am na ñoo xam ne bu ñu kontaanee rek wax lu toj ndakaaru am ñoo xam ne bu ñu meree waxi nappi waaye jullit da nga war loo mer mer nga contrôler sa bopp am na ñoo xam ne ci ñetti minute yi ñu mer fase nañ ci seen jabar ñoo xam ne nii rey nañ ci seen doom ñoo xam ne nii toroxal nañ ci seen waajur mbokk doomu aadama da ngay jéem a contrôler sa bopp ci loolu mer moomu nag mën na yàgg ci nit bokk na lu ñuy toppatoo xam-xamu doomu aadama dañ naan nit ki bu meree dëgg-dëgg am na cellule yuy activé yu ci moom balaa dal dana durer des fois cinq heures de temps loolu tax yow madame sa borom kër mën na jóge service ba am fa problème problème boobee mën na ko topp ba mu ñëw ci kër gi nga na ko nangam rek mu éclater sa kaw fekk ne mer bi feneen lu ko jëlee bari na it ay nit yu demee noonu nga dajeeg doomu aadama wax benn mbir rek mu dal sa kaw fekk ne du yow yaa def loolu dafa am ku ko merloo woon ca mer mi jeexagut ci moom yaa ngi dégg yooyu demee noonu it il faut nit ki di ko di ko xool di ci bàyyi xel bu baax ndax mën na indi woyefal bu dee comprendre nga loolu dañ leen ci nettali benn histoire ku ñuy wax bamba ñaan mbokk yi nekk ci jàkka yu bari xam nañ ko yàlla na yàlla sàmm ko yàlla dafa dem benn bureau ci bureau Dakar am benn secrétaire bu muy wax rek mu yuuxu ko dal ci ko bon ba gars yi sañ na ko waa yow mais kii lu mu wax lu jar nga di ko yooxu bamba ne ah bàyyi leen ko rek xam naa dafa am dafa am problème nee na gis nga tey dugg ci bureau bi ma fekk fi nag waa mais soxna si ah xanaa dafa am lu xew man li ma wax lu jar nga may yuuxu rek bu commencé jooy bi muy jooy mu ne ko lan la mu ne jëkkëram la amal problème bi muy xëy gis ngeen problème bi am na jëkkër ji indi na ko ci service bi léegi-léegi problème mu service bi la yóbbu ci jëkkër ja loolu kon ñu ciy bàyyi xel bu baax doomu aadama bi heure boo meree jamono jooju baril di wax auzu billahi min asheytaani rajim baril di téye sa lammiñ sa kemtaleel kàttan sinon rek da nga wax loo xam ne bu jógee nga rëcc da nga noonu Moussa mermi dal na sakataan musal xadab léegi nag mu xool xam ne def na erreur mu dem jëli la nga xam ne mooy alluwo yi bi yàlla joxoon def ko ci la nga xam ne mooy tawrat boobi bi nga xamee ne jël na ko daa di wax ko xeet bi won leen la ca nekk ci njëggal ak yërmande akum njub ba bani Israël nangu comprendre léegi nag mu ne sama borom joxan ne ma rendez-vous waaye bii pa mu jël ci bani Israël juróom ñaar fukki kilifa ànd ak ñoom ci tuuru Sina biñ ñëwee ci tuuru Sina suñu borom wàcce ci Moussa benn niir nuage bu weex commencé di wax ak moom waa bani Israël ñu ngi dégg Moussa ngi wax suñu borom yàlla di wax ak moom bi Moussa paree ba génn ñu ne ko waa Moussa ñu daal dégg nañ kaddu waaye bala ñoo xam ne kaddu yàlla la wam ñu yàlla ñu gis ko mi ngi noonu lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan alors loolu nag bi mu amee suñu borom mer ci ñoom mer googee tax na mu indil leen benn yuux goo xam ne dafa leen a rey ñoom ñépp ñu faat juróom-ñaar fukk yépp de Moussa daal taxaw jaaxle ah waaye sama borom yàlla léegi man su ma demee li may wax bani Israël ay yàlla lii say fitna la su la nekkoon nga alag ma lu jiitu avant lii ay yàlla li nga xam ne ñu doy di ci ñun dañ koy wax ay yàlla yàlla ba bu ñu ko toppee ba ñu ko toppee du baax ca loolu it képp kuy sénégalais war nay bàyyi xel wax ji Moussa wax ay yàlla bu ñu toppee li suñu doy di ci ñun di wax dama leen ko waxoon tafsir bi passé wallahi lazi la ilaha illa huwa ci sama xam-xam bu gàtt planète terre réunie wax yu bon yu jóge Sénégal amul fenn foo xam ne am na fa amul ci indo yi amul ci américains yi amul fenn ci àdduna wax ju bon ni ñuy wax ci Sénégal amul fenn fu mu am ci kaw suuf yàlla bu ñu yàlla toppee daf yooyu ci ñun mi ngi noonu loolu mi ngi noonu ay yàlla bu ñu toppee li nga xam ne suufaha min naa ñu ngi koy def lii say fitna la yaay jubal ku la neex di réeral ku la neex yàlla yaakaaruñu ku dul yow ante wali yu na ay yow julit mbaa doo yaakaaroo ku dul yàlla mbaa yàlla rek muy sa waliyu ci moom rek ngay dellu ci moom rek ngay sukkandiku ante waliyu na ay yàlla jéggal ñu te yërëm ñu yow yaay gën ci ñépp ñoo xam ne dañuy jéggalee mi ngi noonu am na lu mu ca teg Cheikh Ousmane
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
barakallahu fiik suñu borom jalla waala mu ne Muusa continue ñaan nga ma nga naan yàlla waktub lana fi haadihi dunia xasana ay yàlla bindal ñu ci àdduna ji la nga xam ne mooy aw yiw mooy la baax wa fil axirati ca defal ñu ko àllaaxira inna hudna ilayk ay yàlla ñoo ngi tuub di dellu ci yow qaala azaabi usibu bihi man achaa mu ne sama mbugal day danaa ko laale lu ku ma neex wàcce ci ku ma neex wa rahmati wasiat kulla cheyin sama yërmaande nag peek na lum mën a doon fa sa aktubuha lillazina yattaquuna wa yu'tuuna zaka danaa ko bindal ñi nga xam ne dañuy ragal yàlla di génne azaka walazina hum bi ayatina yuminuun ak ñi nga xam ne suñuy aaya dañ koo gëm allazina yattabi'uuna rasula nabiya al ummiya ña nga xam ne dañoo toppoo yonent ba nga xam ni rasul mooy ku ñu jox ab leetar muy risaal bu bees ngir mu jot ci li ka annabi mooy koo xam ne yàlla xamal na ko nu ñuy jaamoo yàlla ba dañu naan bépp rasul nabi la donte ne mën ngaa nekk nabi ca doo nekk rasul wallahu aalam nabiyal ummi muy yonent boo xam ne jàngul dara allazi yajidunahu maktuban indahum yonente boobu nga xam ne daañu fekk ñu bind ko ca ñoom fi tawraat wal injil ca téere tawraat ak injil yaamuruhum bil maaruf dana leen digal njekk wa yanhaahum anil munkar di leen tere lépp lu ñaaw wa yuxillu lahum at-tayyibaat di leen daganal lépp lu tey wa yuxarrimu alayhim al-xabaa'is di araamal ci ñoom lépp luy sobewu wa yada'u anhum israhum daal di teggi ci ñoom seen yen ya wal aghlaal ak njoñ ya nga xam ne dañ leen koo njoñoon allati kaanat alayhim yooyu nga xam ne daa nekkoon ci ñoom fa lazina amanu bihi wa azaruhu ña nga xam ne dañ koo màggal ña nga xam ne dañ koo gëm ca màggal ko wa nasaruhu gannaaw ba ñu dimbali ko wattaba'u nuur allazi unzila ma'a daa di topp leer ga ñu wàcc ànd ak moom ulaa'ika humul muflihun ñooñu day ñooy ña texe yàlla nañ ci yàlla boole mbokk mi ngi noonu mbokk Muusa alayhi salaam ma ngay ñaan yàlla e yàlla bindal ñu ci àdduna ji la nga xam ne mooy yiw mooy lu baax ca yàlla moo yor ab téeréem moo cay dogal lu ko soob looloo tax ba yow julitit del ñaan yàlla foo mën a toll ñaan gi gën ci ñaan rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar yàlla yàlla nag ñu jagleel ci àdduna la gën jagleel ñu ci àllaaxira la gën te musul ñu ci sawara mu ne ay yàlla ñi ngi tuub di dellu ci yow huut naa ilayk bokk na lu bari ci borom xam-xam yi dañ ni yahuud mi ngi jóge ci baat boobu huut naa ay haadu mooy dellu nañ ci yàlla huut naa ilayk dellu nañ ci yàlla bi loolu amee la suñu borom commencé di leen dekkal mi ngi noonu borom bi mu ne wa axasatkum saahikat wa axasatkum saahiqa wa antum tanzurun thumma baasnaakum min baadi mawtikum laallakum tashkurun mooy juróom-ñaar fukk lañu ñoom ñépp ñu dee bi Muusa ñaanee ñaan gi yàlla commencé leen dekkal ki jëkk a dekki gis morom mi dekki ñaar ñi gis ñetteel dekki ñuy dekki di dekki di dekki ñuy di di gisante ñuy dekki ba ñoom juróom-ñaar fukk yépp ñu dekkiwaat waaye mbokk ak yahut mooy yahut rek ñu ngi noonu gis ngeen noonu la leen yàlla def ñu doog a dellu ci bani israil waaye teewul seen kaccoor ga it teggeekuwul ci ñoom borom bi subhanahu wa taala nag ne waaw dem leen xam leen na sama mbugal ku ma neex ma mbugal la te mbokk yàlla ku ko neex mbugal la waaye li ñuy wax réew mi yàlla du fi mbugal nit mbokk loolu suñuy wax rek la képp koo xam ne sant nga caam kenn du la mbugal famille boo am doom kenn du leen mbugal mbokk loolu suñuy wax rek la suñu borom nee na sama mbugal ku ma ku ma neex mu mbugal ca loolu waxu ko yem ci boo xoolee jaam yi gën yi dox ci kaw suuf bokk na ca yeneen ci yàlla nu wax yàlla dina jël doomam jël soxnaam mbugal am déet bokk na ci yeneen ci yàlla ibrahim yàlla dina jël baayam mbugal am déet bokk na ci yeneen ci yàlla muhammad ana lan ñaata la yàlla jël ci ay jege ñaaleem nar leen a mbugal su ko defee kon ngalla waaye nañu xam ni mbugalum yàlla dëkk du ca musle famille du ca musle dara du ca musle lu dul ñaar yi al imaanu saxiix wal amalu saalix ngëm gu sell ak jëf ju baax lii doo nga ciy mucc de sama mbugal ko ma neex mbugal la sama yërmaande nag ëmb na lu mu mën a doon amul ku ma munta yërëm amul ku ma munta yërëm waaye nag maa koy jagleel ku ma neex bokk na ña ma koy jagleel mooy ña nga xam ne dañoo ragal yàlla moo ko ragal yàlla munta am ci ngëm yàlla amut ragal yàlla balaa am ngëm yàlla gu sell moo koy lal gannaaw ba nga ragal yàlla def ndigal yi bàyyi tere yi te bokk na la koy mandargaal muy génn génn génn zakat zakat ci mandarga yi gëm yàlla li gën a màgg la doomu aadama bi li nga am ci alal yaa ko xam yaa sa borom waaye soo toogee at bu nekk nga contrôler lan laa am ca banque ba lan laa am ca poche lan laa am ca magasin yee évaluer lii lépp xam ni lii moo ci àqu yàlla nga génne ko loolu mandarga ngëm yàlla la danaa ko jox ñi nga xam ne dañuy génne zakka ca mooy ñi nga xam ne dañoo gëm samay aaya mi ngi noonu ñooñu nga xam ne dañuy topp yenent yàlla muhammad ay nabiyul ummi yenent bu jàngul dara ba pare indi téere bu jommal scientifique yi muy wane na kon ci yàlla jalla wa ala la jóge nabiyul ummi bi nga xam ne ay mandargaam gis nañ ko ci tawraat gis ko ci injil muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل yonent bi ak sahaaba seeni mandarga yépp feeñ na ca tawra feeñ na ci injil Muusa waxoon na ne ne yaa bani Israil yonent yàlla laa jëm ci yéen di bégal yonent dana ñëw gannaawam noonu la ko Isa bégale ñoom ñépp amul kenn ci ñoom lu dul bégal ne yonent bu ñëw gannaawam ba xam boobu nag subhanahu wa taala ne yonent yàlla Muhammad ba bu ñëwee dana leen digal lu baax dana leen tere lu bon ay lépp lu baax dana ko digle muy wone ne gannaaw yonent yàlla muhammad képp kuy jàpp ne lii de lu baax la lu yàlla gërëm ca nekkul woon lu yonent yàlla muhammad jàngale day jàpp ne kon ak yonentam manki na wa yanhaahum anil munkar yonent boobu dong nga am droit di araamal ba mu fi jógee kenn amatul droit araamal leneen borom boobu subhanahu wa taala mu ne dana daganal ci yéen lépp lu teey araamal ci yéen lépp luy sobe mbokk lu teey mooy lu dagan lépp loo xam ne dafay lor dafa haram looloo tax borom xam-xam yi dund tey ci kaw suuf amu ci ñaar ñu am ixtilaaf ci ne cigarette dafa haram cigarette boobu nga xam ne tey jii bokk na lu nattkat yi di wax dana rey plus de huit millions de personnes chaque année ci àdduna bi mi ngi noonu feebar yu dul jeex yi muy indee indaale loolu kon dafa xaram lépp luy sobe dafa xaram borom bi it bani Israil tegan noo leen mbir yu diis masalan képp ko masaan rey nit lenn rek moo mën a am dañ lay rey wala ñu baal la diye amul woon ci seen diine mooy diye boo joxe bu dee lislaam téeméeri giléem la looloo tax ku masaan rey ñëpp dañ lay rey sa yére bi bu taqee sobe da nga koy dagg sànni mais doo ko fóot maataama dagg na sobe jeex na amuñu woon tiim kuy jaamu yàlla ndox rek ngay mën a jëfandikoo tiim amul ak yeneen yeneen yeneen yu bari yu yàlla tegoon ci ñoom araamal ci ñoom ay graisse ak yenn ci bàyyi ma yu bari yonent yàlla bi bi mu ñëwee yàlla daganal lu lépp ci la miñam borom boobu nag indi ay charte charte mooy ña nga xam ne dañ koo gëm benn ngoog wa azaruhu ca mooy màggal ko dooleel ko ca mbokk ab jullit day gëm ne ki gën a màgg ci jaami yàlla yi mooy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo xisee ba dégg qaala rasulullahi lan cay teg rek mooy dégg naa topp naa ay waxam doo ko yeme léegi waxi keneen ku mën a doon lii mooy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu ay waxam doo ko yeme léegi waxi keneen ku dul moom azaruhu waaye nasaruhu dimbili yonent bi luñ koy dimbilee yonent bi lan moo nekkoon mission di mooy jottali kàddug yàlla dimbili ko kon mooy jottalil ko kàddug yàlla daana wax balligu anni walaw aaya ay walaw jumla jottali leen ma même bu doon benn aaya même bu doon benn xadis nga xam ko jottali ko ko ko xamul nasaruhu mi ngi noonu waaye nag wattaba'u nuur allazi unzila ma daa di topp leer ga ko yàlla yónnee leer googu mooy lan dañoo jëm ci julli nu ko yonent bi alayhi salaam doon defee moo ñuy leeralal mel na yow borom oto bi daw ci xaaju guddi ci lëndëm faar yi nga yor moo lay won fi ngay jaar nu ñuy jullee nii la ko yonent bi doon defee ni ñuy miraase nii la aqi waajur naka nii la njaboot gi nii la suñuy liggéey nii la suñuy liggéeyloo nii la suñuy atte nag nii la lépp loo xamee ne ni julli da ciy dugg leer ga muy topp mu niital ko fan la war a jaar mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne suñu borom ne in tuti'uhu tahtadu heure bu ngeen ko toppee rek jub amul lenn looy def ci kaw suuf nga doxale ko na ko sunna santaane lu dul nga fekk ci njub fekk ca leer wattaba'u nuura llazi unzila ma'ahu borom boobu subhanahu wa taala ne ñu mel nii day ñoom rek ñooy ña texe humul muflihun mbokk nga la waay jullit gëmal ne kaw suuf kenn doo nga fi texe mooy jullit bi jaamu yàlla bokkaale wu ko dara jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko muy sëriñam def ko muy royukaayam kii rek mooy ki texe mooy ki am xol bu dal mooy am dund gu tey mooy am dund gu dal waaye keneen ku dul kii nay milliardaire nay président nay général d'armée nay lu mu mën a doon da ngay gis ne dund gu xat dund gu kart li dund moo tax borom bi ne ulaika humul muflihun ñii rek ñooy texe àdduna te ñii rek ñooy texe àllaaxira ah mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
جزاك الله خيرا قل يا أيها الناس نيل أي نيني إني رسول الله إليكم جميعا من دي يننت يالا لا بني ينتي ين مولسين الذي له ملك السماوات والأرض yonent boobu oh, yàlla moom nga xam ne ñeel na ko moomeelu ko asamaan yi ak suuf laa ilaha illa hu kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom yuhyi wa yumiit mooy dundal ca mooy rey fa aminu billahi wa rasuli ay waay gëm leen yàlla gëm ab yonentam annabiyil ummi yonent bu nga xam ne jàngul dara mi illettré allazi yuminu billahi wa kalimaati yonent boobu nga xam ne daa gëm yàlla gëm ay kàddoom wattabi'uuhu waaye it ngeen topp ko la'allakum tahtaduun ngir ngeen doon ñu jub wa min qawmi Muusa bokkoon na ca xeetu Muusa ummatun yahduuna bil haqqi wa bihi ya'diluun xeet boo xam ne dañ doon jubee ci dëgg ca it ci la ñu doon diggu dooma ay ci la ñu doon attee mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax yonent yàlla bi da ko yónni ci mboole mi nit muy benn yonent la yàlla mas a yónni yónni ko ci mboolem nit ñi yónni ko ba ila yawmi diin waaye beneen yonent bu mu mën a doon yonent la bu yàlla yónni ci xeet Muusa yaa bani Israil lima tu'zunani waqad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum isa ya bani israil inni rasulullahi ilaykum amma yonent yàlla muhammad yàlla moo ko yónni ñu weex ñu ñuul septième siècle ba ko yàlla génnee vingt-et-unième siècle ba ba àdduna di tukki képp kenn ci ñun yàlla yónni ne ko ci moom lan moo tax yàlla yónni ko ci ñun mbokk mooy mu xamal ñu ne yàlla rek la ñu war a jaamu ci nii rek lañ ko war a jaamu gaa yi lii rek mooy yonent yàlla man yow ñun ñëpp yàlla yónni na ci ñun directement yonent yàlla muhammad pour lan mu xamal ñu ne yàlla dong lañu war a jaamu ci nii lañ ko war a jaamoo wañu ne kon bépp jaamu yàlla moo kenn waru koo jàngale ci waruñu koo roy ci kenn lu dul ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam inni rasulullah ilaykum jamia yàlla moomu moo moom waa asamaan moo moom la nekk ci asamaan ci malaakaat yi biddiw lu mu mën a doon ñiy dox ci kaw suuf ñëpp moo leen moom ñëpp ay jaami yàlla lañu ñëpp ay jaami yàlla lañu ca kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom ñiy dund moo leen dundal ñi dee moo leen rey ay waay gëm leen yàlla ah gëm yonentam yonent boobu nga xam ne moom day gëm na yàlla gëm ay kàddoom te na am mbokk jullit yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mu masaan digle moo koy jëkk a def lu mu masaan tere moo koy jëkk a bàyyi bépp jaamu yàlla moo ca manoon loolu sahaaba yépp képp xam nañ ko buñ daan jihaad ali nee na daan nañ dem ba kenn du dox digganteem ak noonu yi nam daan naafila guddi kenn mënu ko nam daan woore kenn mënu ko nam daan joxe kenn mënu ko sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla digle moo ca raw mooy yuminu billah gëm na yàlla gëm ay kàddoom topp leen ko su ngeen bëggee jub ma gaa yi ndax wax mën naa gën a leer wax ji wattabi'uuhu la'allakum tahtaduun topp leen yonente bi ngeen bëggee jub waaye Mor Ndiaye dagg fële ne déet fii moo gën a jub Mor Seck dagg fële ni fii moo gën a jub Mor Thiam dagg fële fii moo gën a jub mbokk yoon bi benn yoon la muy yoonu yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fattabi'uuhu la'allakum tahtaduun topp leen ko su ngeen bëgg ngeen jub mi ngi noonu borom bi nag wëlbatu ko waat ci wax joo xam ne bu ñu fi dajale waatee incha allah lañ ciy gën a yeggale mu ne xeetu Muusa nag yéemuñu woon liñ doon bon bon bon amoon na ca benn mbooloo boo xam ne ñoom ñi ngi doon nekk di gëm Muusa di jëfe dëgg ca it di atte ci dëgg ca loolu itamit da ngay gis mbokk mooy mbaaxu gi yàlla boo xam ne nit yonent bi alayhi salaam bégal na ci suñu xeet bi diina dana ma sa yàqu lool waaye nee na yàlla may na ko ba ba àdduna di tukki yàlla dana saxal benn mbooloo boo xam ne daañ continuer sax ca la yonent bi nekkoon continuer di woote ca la yonent bi doon woote yal na yàlla boole ñu ca ca nangul ñu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waa ji dafa war a génn zakat waaye am na dafa am bor boo xam ne da ko war a fay bu dee ne da nga am bor boo xam ne da nga ko war a fay bor boobee doo ko gé da da nga koy génne ci la nga war a génne zakat masalan yaa ngi un million mais yaa ngi yoral ma samba mais trois cent mille su boobaa sept cent mille yi loole nga moom loolu ngay génne zakat allahuma lu dul li ñuy tuddee ay bori traite bu dee bori traite borom xam-xam yi bokk na lañ cay wax li ngay génn ci at mi loolu ngay génne zakat masalan benn waaye ngi nii tey mi ngi vingt millions mais mi ngi leb ca banque ba wala fu mu mën a leb trente millions kooku ñu ne il est déficitaire ndax dañ naan ko du génne zakat dañ naan déedéet nañ xool li muy génne ci at bi bu dee par traite lu koy fay loolee la muy génne ci at bi loolu lay génne ci xaalis bi mu yor la ca des mu génne ci zakat ndax bu dul loolu da ngay gis ne kooku mën a dund ba xëy de fekk sax du génne zakat kon daal bor boo xam ne dafa taxaw nga xam ne waa ji heure boo amee da nga koy remboursé loolu moom bokkul sa alal doo ko génne zakat bu dee bor la boo xam ne nag ay traite la la nga war a fay ci at ma loolee ngay génn ci xaalis bi nga yor pour génn ci zakat wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw bismillah naam
li wax seen jabar mu ne jabar lu am la wala mbir buy def jamono toll nii amul si ñoom dafa leen bëgg a trop découvrir ñun lan war a def ko amul si ñoom daal.
njabar lu am la nu ñuy def ba mucc ci ñoom waaw njabar moom lu am la weddi ko sax ak kéeféer la bu dee da ngaa taral parce que yàlla ko saxal nu ñuy def ba mucc ci ñoom mooy ñaan yàlla musal la ci ñoom la gën a am solo looy def ba mucc ci ñoom ñaan yàlla musal ci ñoom bokk na ci ñaan yooyu sabab yi la nga xam ne dañ koy tudde mu awisaat qul huwa allahu ahad qul a'udhu bil falaq qul a'udhu bin nas amul lenn lu mën a musla ci njabar lu mel ne ñetti saar yooyee fexeel ba foo julle ba pare jàng ko soo mënoon di ko jàng timis ñetti yoon fajar ñetti yoon moo gën a ci ndax boo gisee njabarkat mooy ñi borom bi di wax wa min sharri naffasaati fil uqad ña nga xam ne dañuy ëf ci pas-pas yi loole kon la ñuy def gannaaw ba nag am na ay yeneen sabab waaye daal sabab yi ci gën a am solo mooy sukkandiku ci yàlla ñaan yàlla ak sax ci ñetti saar yooyu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam histoire yooyu mbokk yooyu ñëwul ci ay mbir yu wér la nga xam ne mooy gën a am solo ci doomu aadama ñu sukkandikoo ci wax yoo xam ne ay wax yu wér la amma waa joo xam ne ab say-say la woon da daan naan sangara da daan njaaloo criminel la woon bi mu deeyee ñu gis ko ci ay gént mu def bokk suñ diine sukkandiku wuñ ko ci ay gént loolee ku bëgg sa diine sell ngalawaay sa diine bu ko sukkandiku ci ay gént diine ji yàlla jox na ko yonenti yàlla mu jox ko ay sahaaba mu jox ko taabiin bu yàlla tàggat ay borom yi xam-xam Bukhari Muslim Abu Dawud Imam Malik ñu del ko tënk ko ci téere li mooy diine amma lépp loo xam ne dañ naan ci gént la wala kashfu la wala ay may la li ngi mel ne suñu àllarba ñuy wax àllarbay kare rek dañ naan ay kashfu la am na ay borom xam-xam yu yàlla feeñu nangam mbokk bépp feeñu gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yemale leen ko ca kam feeñ ca moom yow dulit sa yoon nekkul ci loolu diine mooy qaala allah qaala rasulullah leneen lu dul loolu du diine wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw bismillah naam laaj kuy tukki fekkee mu ñëw fekk fekkee julli kii matal moom mii di tukki léegi moom naka lay def te mu war a wàññi.
borom xam-xam yi dañ ca am ixtilaaf ci loolu doonte ne ne bokk na la nga xamee ne nii gën na siiw mooy ci mazhab Malik te it mooy la nga xam ne ku mel ne Ibnu Abbas loolu la daan wax mooy tukkikat heure bu ñëwee ca jàkka ja wala fu mu mën a doon am imam boo xam ne day matal day ànd ak moom matal loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a siiw ci loolu soo gisee it keneen ku def leneen lu dul loolu nga xam ne am na borom xam-xam yi ko wax waaye daal bokk na la gën a siiw te it gën a dal xel mooy nga matal ànd ak sa imam wallahu alam naam bismillah naam dafa toll ci diggante ndax dagan na mu laaj zakat naam dagan na ci moom bu yégee ci boppam ne moom yeyoo na zakat mu gis koo xam ne day joxe zakat am na droit ne ko boo amee zakat nga jàppale ma ci ndax dama toll ci diggante loole moom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk mën nañ doy loo loolu ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp loo xam ne ñu ngi ko fiy waxit la cay njub yal na yàlla wërsëgal ñu jëfe ko la cay njuumte yal na yàlla xamal ñu ko bañ moytu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain